am na ci moom kenn du mënul wax ne détournement ndax ña war a jot xaalis bi jox nañu ko jot nañu ko ca waxtu ba xëj na kay ni mu ko jaarale maanaam espèce loxo loxo loolu moo dul yoon non mais attends moom wéy na ba mu seet non mais xaaral tamit Mambé waa mais mu dafa bëgg a wax na ne kon contrôleur cour des comptes la ñu wax lépp dara amu ci tontu na de ñoom. non non non loolu laa la bëgg rek Amadou mais ay contrôleur nan nañu mënee ñëw duut la baaraamu tuuma ne la sa waaye na nga doxalee jalgati da cee am jaarut yoon. mais ah. fay espèce jalgati mun na ci am. fay espèce détournement mun na ci am. Mhm. loolu tax te loolu setalu ko de. loolu taxul mu setal boppam ci mbir mi. parce que buñ ne bu fekkee ne yow daaj nga. dafa am lu la yoon may pour nga doxalee ko ci lu jëm ci ay opération financière muy dépense bi parce que yow yaa yor koppar am traçabilité justement waaw mais moo la gën a xam ne ne virement la war a fayee pour mu am traçabilité ay pièces léegi nee na boobu na erreur boobu la def <laughs> te bind na d'accord ko mais erreur boobu wax mun na indi ay soupçon de détournement waaw moom laa lay expliquer maa nga ñëwee dañu wax moom mu tontu léegi ñeekay ñoo xam ndax li mu tontu valable na wala valable waa Cour des ndax nee na loolu lañ ko tuumaal lañ ko wax ne waroo koo def d'accord na ne waru ko def erreur la te bind na ne ne erreur la. mais kenn mënul wax ne détourné na wala surfacturation am na. wala lu mu ci màcc mais bu amul traçabilité bu amul. alors malheureusement ñëw ci affaire xam ne nii passeport de service yi nga xam ne dil la bu toj bëri téye nañ leen ci euh, mbirum passeport de service yi ndekete dil la bu nga xam xam na fi. cette fois-ci passeport de service la. mais ñu bëri nag jàpp nañ leen El Hadj Mansour. naa Yacine nuyu naa leen Birahim foofu euh, Mambay ñu dem. opposition bi tey motion de censure lañ bëgg a dugal assemblée nationale jubluwaay bu may daaneel gouvernement bu Amadou Ba. Pape ale Niang génn na may nañu ko liberté provisoire waaye mu nekk sous contrôle judiciaire avocat am ni dafa war a jeex lu may loolee euh, rapport bi bàyyi ko ci euh, Covid 19 bi ak itam jalgati ci am Birahim Seck njiital Forum Civil yëkkati na ci kàddoom sport nañ ci ànd ak Baye Man Tëmbuub euh, yéene kay mantu lay ci bundooy Voici Trafic News. Abba Diatta. oui Yacine. Abba ça va foo tollu. voilà merci beaucoup sur le boulevard nous venons de quitter le boulevard du 120 la commune de Dakar savar yoonu Yaraax yéen ñu bàyyi ko Seras ba dem Fogaté magasin am ay gros posteurs yu mag stationné ci tracé boobule ensuite bu ngeen egsee ci am ngeen choix bi soit da ngeen progressé au ralenti utali boulangerie Kapa utali Safran Point Espoir wala bokk nga jël boobu la échangeur yaa ngi wàcc utali tali problème moo lay menacer Cambérène où c'est complètement saturé vous allez perdre beaucoup de temps nga bàyyi ko Pikine Kaas wala Maristes su ko aussi d'autres aussi dañuy jaare rek biir Maristes yi ngi génnee pour privé bu Maristes boppam su aussi ngeen progressé au ralenti service technique foofu la aussi ñu bàyyi ko boulangerie Capa jaare ko parc bu Hann dañuy changer par là au niveau du rond juste à hauteur de l'échangeur de Hann su ko defee foofu la vers la cité merci Abba ba si kanam aywa El Hadj Mansour Pape Alé Niang jot na liberté provisoire ni ki démb mu ngi ci sous contrôle judiciaire avocat mu maître Moussa moo ko confirmé te ni la leen gënaloon yegg ci cëppaandaw yi kenn du ko topp ci dara ndax amul témoin te déglu nañu ko ba noppi ñu teewlu ay kàddoom. maître Moussa et surtout euh, di rafetlu libération bi nga xamante ne am na ka di lañ doon ñaan moom lañ doon wut et bu fa toogaatoon maanaam euh, ñaari fan rek mën naa ne musiba doon na am ci dëkk bi waa ndax doon na sax tiit ci état wu santé bu Pape Alé Niang moo jiite kuréel gi boo taskatu xibaar nekk ci internet bi ñu teewlu kàddu Ibrahima sa Faye sant yàlla et surtout euh, di rafetlu libération bi nga xam te ne am na di lañ doon ñaan moom lañ doon wut et bu fa toogaatoon maanaam euh, ñaari fan rek mën naa ne musiba doon na am ci dëkk bi waa Ibrahima li sa fay kon euh, mbégte boobee la am ci liberté provisoire bu Pape Alé Niang Birahim càkkutéef la guñ yàgg di sàkku euh, Pape Alé Niang am ni dañ ko sax faf teggi loxo ba mu jeex ndax liberté provisoire ak sous contrôle judiciaire euh, bi tegu ci koom itam am na lu ñu koy xoqatalee. waaw objectif yi mooy surtout xoqatal yooyu bañ a am wala euh, li ñu naan épée de Damoclès bañ am ci ndodd benn journaliste wala ci kaw benn journaliste. liberté provisoire certes c'est très bien parce que sàkkoon nañ ko ndax. ku commencé gré du la faim euh, miinu ko ak comme ñeneen ni ñu ko defee miinuñu ko mu dem ba euh, mu laati kaaf loof ba avocat yi soxnaam d'abord ak ñeneen ñi nga xam ni dem nañu nemmeeku ko euh, seen xel xawoon na ñàkk dal loolu si wér-gu-yaramam bu ñu demee ba liñ naan gis justice manso dafa am lu ñuy woowee dafa war a am benn humanisme bu ci am maanaam kii nit la dëgg la naam mën naa def lu ñombe wala lu ñaaw waaye donte war nañ ko tëj wala donte war nañ ko teg ay daan humanisme dafa am ci justice je ne dis pas que c'est le cas pour pour Pape Alé ndax def na wala deful non non mais de manière générale dañu war a def li ñuy woowee humanisme ci biir justice ba nga xamee ni nit ki am na fay toll ci sa wér-gu-yaram ñu mën la gaawantu bu dee dañ la war a àtte ñu àttale ci bu gaaw bu dee dañ la war a libéré ñu libere la également ci lu gaaw te je pense que dañ koy saluer te di ñaan suñu borom gannaaw liberté provisoire donte contrôle judiciaire mais mu bénéficier non-lieu total mais plus jamais ça maanaam journaliste ci métier mu journaliste am wala ci euh, casquette journaliste bu mu yore ñu bañ a am yenn ci ay gàllankoor yoo xam ni mën nañ ko teg ci ndoddam euh, te tamit de manière générale introspection également am dans ce dans ce métier euh, ba nga xamee ni peut-être du du ñu toppee loo xamee ni euh, mën nañoo njort ni bunt la bu ñu leen di ubbil muy politique yi muy pouvoir comme opposition pour ñu mën a dal ci suñu kaw. mais daf mel ni Mamadou foofu na jinne ji deewagul de. <laughs> waaw waaw parce que bu fekkee ne ne euh, bàyyi nañ ko ba pare mu di euh, bàyyi ndéggandiku boo xam te ne nii ci contrôle judiciaire la nekk moo di ne euh, ba léegi nii fe moomagul boppam na mu waree tey dañuy continuer di ko dénoncer ba léegi tey palaasu journaliste je crois nekkul ci prison journaliste war na bokk ci ñi nga xam te nii kat tey war nañ leen gën a may sañ-sañ pour ñu mën a doxal seen liggéey na mu waree ci enquête yu ñuy amal ci saytu yu ñuy amal euh, ci yenn yi nga xam te ne nii ñu ngi koy gëstu uniquement parce que jàpp nañ ne ne tey ñoom ñoo war a yee askan wi ñoom ñoo war a gindi askan wi ci lu bëree bari ñoom ñoo war a tax tamit askan wi di xam fan nañu war a teg seen tànk donc kooku bu fekkee ne ne da koy teg yenn yoo xam te ne nii kat da koy indil jafe-jafeem ci liggéey ci liggéeyam su boobaa dina nekk loo xam te ne nii lépp li nga xam ne ñu ngi koy bëgg ñun mu di euh, dëkk boo xam ne démocratie dafay dox na mu waree su boobaa dinañ dina gàllu goose donc encore une fois euh, ñu ngi rafetlu bàyyi bi ko bàyyi mu di moom Pape kon ne xeex bi pour lépp li nga xam ne tamit retenir nañ ko muy charge contre sa personne ñu mën ko tegg féexal ko nu mu gën a gaawee alaj Mamadou Fofana ba euh, maam ah, ñëpp xam nañ ne kon fii ci euh, euh, réew mu ñuy wax démocratie nit ki boo waxkat moom boo ko teree wax rek c'est parce que la muy wax daf la arrangé wul wala la muy wax peut-être dañoo jàpp ne bu waxee dëkk bi yëngu mais ñëpp xam nañ ne Pape peut-être li muy wax moom mu arrangé wu woon nguur gi looloo tax ñu teeni ko bàyyi nañu ko nag alhamdulilah donte euh, yet waa ngi ci euh, bopp bi ba léegi waaye terewul nag euh, moom ni mu ko xamee engagement ba mu amoon détermination ba mu amoon te la mu jàpp nekkoon askan wi moo taxoon mu koy def ba léegi neen da koy wéyal na continuer si mission bi mu nekkoon rek et puis ñu xam ne Sénégal sunu Sénégal la ñu ni neen la ko Mame Mbaye Ndiaye ñu wax ci Massata Samba ak Mamadou Niang ñu ni euh, ñu ngi ci loxo way takk der yi ginnaaw bi leen waa DIC tegoo loxo euh, dañu leen dugal ci euh, garde à vue lu mooy loole seen ay avocat nag jàpp ni tey ci alxames ji wax nañu jàkkaarloog àttekat bi waaye ba léegi ñu ngi continuer bañ tontu ndax dañu jaaragul fi ñu war jaar ndax mbalaanal kiiraay ba ñu am ci seen dossier boobee seen avocat moo ko xamle maître Abdinaar Ndiaye ñu teewlu ay même bu teewul ci assemblée nationale mën naa joxe maanaam ndigal maanaam ñu voteel ko à sa place moo lay wax procuration de joxe procuration rek maanaam ñu ñu ñu ko tant que condamné wuñ ko définitivement le ministre en fait de la justice jël décision demander à ce que le président ñu procéder à leur radiation kenn mënut a kenn mënu leen a te exercer li xam ni moo taxoon ñu fal leen député du perte sa qualité lu dul maanaam ñu am une condamnation bu dal ci kawam mu nekk une condamnation définitive. sax foofu ci la ñuy continuer wax ci motion de censure bi nga xamante ni bi tey jii député de l'opposition bi daañu ko dugal xemmeemteef ga mooy daaneel euh, gouvernement bu Amadou Ba muy euh, député yi nekk ci Benno Bokk Yaakaar ci wàllu histoire Sénégal nag motion de censure bi nekkul bu njëkk doonte woon ne xëy na contexte yi bokkuñu ak itam li nga xam ni noonu lay doxee ci wàllu politique. fàttali ak Safietou Ba Ndiaye jégalu ci euh, son daa jagadi waaye du tee des ko commenté xew-xew la bu am ci assemblée nationale somba daa jagadi di. <laughs> daa jagadi moom su ma daa doy waar moom waaw. <laughs> bu dee ci wàllu Mamadou Dia digganteem ak Senghor la woon. Uh-huh. Euh, bu Abdoul Mbaye ak yeneen yi fi jaar yëpp. mais est-ce que bokk naag opposition bu naw boppam ci biir assemblée nationale ba am doole pour def face daaneel nguur goo xamante ni bii. dafa féete maanaam dafa am majorité à l' assemblée nationale. xam nga bii mosuñu ko marqué. waaw waaw waaw configuration bi ñu am tey ci assemblée nationale euh, nañu reconnaître na quand même mosu fi am. donc tey lu bëri mun nañ leen ko permettre pour ñu mën ko am euh, muy ay xeex yoo xam ne mi ngi jëm surtout euh, ci jëmal ak ak yelleefu doomu aadama jëmmal démocratie ainsi de suite donc tey configuration bu ñu am may na opposition bi lu ci bëri la mu bëggoon régler ci lu jëm ci doxalinu réew mi donc je crois mën na ko régler maintenant. Euh, li ci xaw a ñagas tuuti moo di ne yaa ngi koy wax Mamadou Dia ak Senghor c'était en 1962 euh, Mamadou Dia mujj na euh, perte gouvernement bi moom ñi mu àndaloon ñu ngi koy fàttaliku c'était le vingt 26 décembre tey jii nii encore. Euh, Amadou Ba moom mooy ñëw 2012 ñu ngi koy wax c'était sous Abdoul mbay boobu jàllul euh, maintenant d'abord crainte bu ma ci njëkk am moo di ne waa wàllu yëglu ne ñoom boole wuñ leen ci yëf yi ni ko Birame waxee sànq wat gaal ak yëgoo loolu premier euh, benn contrainte la beneen bi di indi incohérence par rapport ak maa ngi koy wax sànq parce que bu fekkee ne ne Amadou Ba ak ay ministres am bu ñu génnee ci vote des budgets bi yàggul une semaine après nga bëgg a ñëw daaneel gouvernement bi c'est incohérent kon lan moo taxoon ñu doon voté budget bi nga xamante ne nii moom nañ jàpp ne ne ñoom nangu nañ ne euh, budget la boo xam ne bu am solo parce que même ci biir vote yi da ngay gis tantôt Euh, euh, euh, day étriqué quatre vingt quatre vingt deux mais tantôt dañuy dem ay quatre vingt sept contre soixante quinze ainsi de suite donc yooyu dalay wan na ne am na foo xam te ni opposition cela veut dire que ànd nañ ci d' accord nañ ci yenn yenn budget yi donc ce qui veut dire que man de bu fekkee ne ne ci lii nañu nar a dem ci logique bii nii damay jàpp na ne motion de censure bi mën na bañ am mu sotti maintenant nag je crois que c' est que dans quelques heures dinañ ci nu mu gën a yaatoo ci wàññi dafa ñu mu jekk ay gëtam saute tout en sachant que peut-être dinañ soxla caution wu 83 députés n'est-ce pas. sur oui c'est 82 plus 1 afin que loolu ñu mën ko ñu war koo mën a nangu déjà avec euh, wàllu qui dit que ñoom duñu voter on sait que c'est une intercoalition. Hmm. Yewwi ak wàllu. non ah, seulement ça peut peut-être friser encore une fois au sein de l'intercoalition. encore que wàllu moom nee na du voter tout simplement parce que à la dernière minute loolu lañ leen averti. dañ ko yëgal quoi hmm. tàgguwuñu ko. xam nga bu ñuy voter euh, ci sur le plan pratique bu ñuy voter comme c'est public maanaam amul nëbbatu amul dugal ci enveloppe dugal ci urne. Mm-hmm. dañ naan dañ naan kan moo d'accord ci motion de censure boobu. Mm-hmm. ñu yëkk ci loxo ku ci d'accordul ku abstenir ak yooyu ñooñu ñëpp duñ ci bokk maanaam ki ci d'accord mooy yëkk ci loxo ñu compter ne ni ci ñu nekk ci assemblée nationale 165 députés yi am nañu majorité absolue mooy maanaam euh, moitié plus benn muy 80 83. 84. Euh, mooy 83 yi ça veut que da ngay yëg ci loxo <coughs> dani man bokk dans ci ñu d'accord ci loolu mm. ñeneen ñëpp nag mën ñaam seen beneen opinion boo xamee ni dañ naan bu doon dañ koy voté ci euh, bulletin dañ naan ñun dañuy absteniru wala ñun ci biir bulletin dañuy duñu duñ ci d'accord mais boo xoolee euh, Mansour Yacine li nga xam ne moom mooy exposé des motifs bu yeewi askan wi génnee pour lan moo waral ñu bëgg def lii di ñu def motion de censure ah. bëgguñu ñu ko ci euh, gouvernement premier ministre ak gouvernement ñoom dañoo jàpp ni assemblée nationale ci yoon moom mooy fal premier ministre ci suñu système dañ naan kii am majorité ci assemblée moom mooy teg premier ministre mais dañu jàpp ni assemblée nationale député yu ñu yoroon amuñu woon sañ-sañu wane ni ñoom d'accord nañu wala ñu bañ a d'accord ci doxalinu gouvernement alors que ñoom ñoo yore wàllu contrôle boobu parce que da doon fekkoon mu amoon majorité daanaka chambre euh, d'applaudissement lañ ko daan wooyee sax wala ñoo xam ne dañ leen di jox rek ñoom ñu ne tàccu na waaw ne gongo baax na sauf que ñoom dañoo jàpp ni comme élection législative yi ñu weesu dañoo wane ni daanaka dañoo témboo dañoo tolloo ni askan wi am na lu mu wanee ginnaaw régime bi fi ne ak Euh, coalition bi fi nekk di benn Bokk Yaakaar jiite ko. Mhm. ñu won leen ginnaaw ci assemblée. la ñu bëggoon mooy premier ministre ba muy ñëw di def déclaration politique générale am. Mhm. mu laaj ñu di député yi ci assemblée nationale li ñu wooyee euh, motion de euh, confiance. ndegam yéen d' accord ngeen ci man d' accord naa ni tey assemblée dafa bari ay député yu fa nekk ñu bokkul ci ci pouvoir nangul naa leen ni. am ngeen euh, benn sañ-sañ nangul naa leen ndam li ngeen am ci élection législative yu ñu génn léegi est-ce que wóolu ngeen ma man seen ndaw en tant que premier ministre pour ma doxal li nga xam ne moom mooy euh, politique bi nga xam ne moom moo war a am fileeg yeneen élection muy déclaration politique générale bi mm-hmm. ñoom dañu jàpp sax ni nekkatul sax motion de censure mais motion de défiance lañ koy lañu lañu la ñu ci jiital ndax ñoom dañoo gis ne ni voté censure gouvernement boo xoolee li ñu benn ci exposé des motifs yi mooy confirmer que les sénégalais dans une large majorité ne sont pas convaincus de la déclaration de politique générale du premier ministre mm-hmm. ñëw na def déclaration mais xam lan moo ciy xaw a euh, yéeme dans cette histoire même pas yéene mais assez cocasse li reetaanlu même bu dee dañu jàllale motion de censure bi ñu ne Amadou Ba député yi large majorité majorité absolue nee nañu bàyyil ci saa si day déposer les démissions président de la République ainsi que la démission de celle du gouvernement donc de tous les ministres mais ci saa si président mën na ko jëlaat ne ko démissionné nga waaye tabb naa la yow ah, mën na ko tabb moom premier ministre mhm. bu démissionné maanaam motion bi jàll mu démissionné démissionné mu démissionné démissionné gouvernement bi ci saa si président comme am na prérogative bu ne ni léegi bon voilà léegi Amadou Ba démissionné nga j'accepte ta démission léegi woote dans une heure de temps je prends un nouveau premier ministre Amadou Ba nommé premier ministre gouvernement mu reconduire tout le monde hmm. donc c'est c'est bon cocasse on dira mais c'est plus l'acte euh, politique qui qui va avoir son importance pour xam justement comme li ñu doon wax sànq kan mooy voter pour cette motion de défiance de de de censure. très bien maam sànni ci sànni ci loo ci gis daanaka manqué ju ñu benn peine perdue la de maam. peine bu fekkee ne nag euh, gouvernement boo xam ne mën nañu ko taas. ñoom bu fekkee motion de censure bi jàll na et puis possibilité bi président Macky Sall moo di renouveler waat ko. Mm-hmm. loolu dafay firnde ne seen combat bi. leneen. Mm-hmm. amatuñu sañ-sañu defaat. defaat motion de censure. ci ce qui veut dire que c'est peine perdue xam nga ci ci session bi. xam nga lii dafay wane ne que opposition mën na bañ a dugg ci ay combat yu nga xam ne nii. mën na ñàkk wala ñu waaw c'est vrai c'est principe mais xam nga lii dafay rejoindre titre bi nga xam ne moom la quotidien tribune def euh, seen xeex tant que coordonné wuñu ko. àndandoo xeexandoo ko amaana bu ñu ko waxtaanee woon sa tey motion de censure boobu duñ ci nekk mën na nekk ci beneen combat bu gën a utile que motion de censure ngir tas gouver ngir tas gouvernement bi ndax parrainage bi ñu ngi koy agité donc je pense que seen i xeex nañ koy gën di coordonné non ñoom xam nañ ñu action c'est un acte politique aussi oui c'est euh, dans ce c'est juste une question par rapport ak euh, li ngay waaj wax ni est-ce que euh, dans ce contexte peut-être le président de la République il a pas justement prérogative boobu noonu pour dissoudre encore une fois l'Assemblée nationale bu fekkee ñoom déggoowuñu seen biir véritablement non loolu loolu amatul luñ ciy werante président de la. am na possibilité am na possibilité. bu blocage amee après deux ans la ko mën a def. waa mën a tas li nga xam ne moom mooy assemblée nationale. mais pour en revenir ci li nga xam ne ñu ngi ko doon wax. seen tey daaneel gouvernement c' est un acte politique. dafa am lu muy tekk dafa am oui non attends dama lay expliquer parce que tey opposition bu ñëwee jàkkaarloo ak ñi nga xam ne moom mooy régime bi fi nekk. Mm-hmm. indil leen ay jafe-jafe jël ministre premier ministre ak ñi nga xam ne ñoom la àndal. président am confiance ci ñoom teg leen fi mu ñëw ne ko kat ñii nga fi teg gënuñu fi nekkuñu fi baaxuñu parce que ñoom parewuñu sax pour mën a jiite Sénégal daaneel leen ci mais loolu l'histoire retiendra ci régime Macky Sall que ne moom ci ay gouvernement am daaneel nañ ko ci motion de censure loolu benn la beneen bi moo dina tamit également ñoom dañuy politique au la d'être des parlementaires tey acte politique nit ki da koy teg pour mu nekk loo xam ne da nga koy marqué pour loo xam te nii tamit wane jëmm ak taxawaay bi nga xam ne yaa ngi koy taxaw ci ne wéy ànd nga ci loo xam ne baax na état bi koy def ànd ànduloo ci loo xam te ne baaxul état bi mi ah, ci wàllu parrainage bi nga xam ne mooy tax nit ki mën a bokk ci yooyu lay ci élection ak yu mu mën di doon bi nga Sénégal taxawaleeg léegi ñi ni baaxul bëri na lool. ñi politique ci Sénégal jëkk ni baaxul ni ki itam yaaw ni baaxul Union européenne nag ci mujjanteel itam mu ni baaxul. Mohamed Diop moo ñu jàngaloon sax këyit ga bàyyeekoo ci waa Union européenne élément bàgga sax fond force Covid 19 bi nga xam ni ñu ngi koy jàmbat ba léegi ci rapport bi bàyyeekoo ci Cour des comptes waa Forum yëkkati nañ ci seen ay kàddu Birahim sekk ñaawlu ko te jàpp ni du ñu nangu kenn kuy caxat caxatee alalu askan wi massacre financier sax la ko woowee moom Forum Civil ba jàpp ni war nañu ci indi ak jubbanti gu ñu yoonal. ngir kat alalu askan wi dellu soit ci seen ay loxo ci anam gu gaaw fédération bi boot syndicat wu sant nekk ci grève 48 heures waaye waa F2S ci seen conférence de presse nee nañu euh, du ñu def lu dul euh, urgence rek la ñuy assurer service minimum euh, bokk na ci la ñuy sàkku nag mooy ñu leeral ñaari téeméeri milliards yi nga xamante ni bii dugal nañu ko ci ñaari téeméeri million ci seen secteur ñoom te bàyyeekoo woon ci gestion fonds Covid bi nga xam ni gisuñu ci seen bopp. alors euh, coow laa ngi bëgg bari ci Covid 19 bi de ak xaalis bi nga xamante ni bii ku nekk nga jéem a justifier bi rayim waaye cëppaandaw ji daal moo ti nii am na ci lu leerul. xam nga dama ko bu ñu ko becc woon comme ni mu digg woon seen loxo daal tuumaalante bi dof mel du bëri. damay reprendre les les propos de Birahim Seck bu Forum Civil mu ne ci c'est même dans le quotidien Tribune. Macky doit impérativement agir sous peine pris pour complice xam lu tax Macky Sall président de la République est complice qu'il le veuille ou non complice boo xamee ne c'est pas forcé que da def wala da nga cautionner liy def mais complicité bi mooy lan dañu nekk ci benn période de crise sanitaire nga ne léegi man président la République damay génne benn décret boo xamee ni benn loi taxawal ko ne nii Euh, comme am na urgence te dañoo war a sauver ay bakken amatul sax ay jaar assemblée nationale ay jaar fii jaar fële ay leeral yenn yi nañu lijjanti ci lu mu gën a gaaw gannaaw gi ñuy doog a euh, indi yenn ci ay ay leeraange ci lii nii lañ ko dugal fii lañ ko dugal ak yu ni mel ndax moom moo indi ñu ne cour des comptes demal def saytu moo indi ñu ne inspecteur général des euh, IGE saytul nangam ndax am nañu jumtuwaay yoo nga xam ni taxaw na pour saytu lépp loo xam ni koppar la bu dugg wala bu génn te jëm ci wàllu gestion bu mu mën a doon muy Covid muy wàllu inondation muy lu mu mën a doon mais li tax ma ne complicité bi mooy ñenn ñi dañoo jàpp ni décret bi mu génnee ne ni euh, exception am na exception mooy léegi ñun nañ def exceptionnellement loo xamee ni peut-être daawuñu ko def wala mosuñu ko def alors que dafa am ba ci biir li nga xam ne moom mooy autorité de régulation des marchés publics di ARMP ci ay texam boole nañ ci bu dee exception dafa am wala bu dee urgence dafa am donte urgence la mais nii am na lu ñu ko war a doxalee ba nga xamee ni leeraange dina am ci gestion wu xaalis bi nga xamee ni dugal nañ ko ci lu mu mën a doon ci wàllu urgence bii ça concerne euh, lii nga xam ne moom mooy xeex mbas mi ñu jàpp ne daaj yi maa ngi koy wax la dernière fois ni daaj yëpp ku nekk ñu ne daaj daaj daaj ministère yëpp daaj yi lañ ciy wax ñu ci tudd ñëpp mais c'est normal parce que naan ko bot bu kii xaj boobu la te ñoom ñoom ñooy cheville ouvrière ministère bi daanaka ministre bi ministre la mooy tutelle bi mooy autorité bi waaye la liggéey bi di bari bari bari bari bari daaj bi moom mooy saytu lépp xaalis buy génn ak buy dugg lu ñu war a def ba ci taabal ba ngay jënd ci biir ministère bi day jaar ci loxoom. bureau ba ngay jënd dafay jaar ci loxoom daanaka lépp day jaar ci loxoom mu nekk la personne la plus importante sax ci biir ministère bi sans pour autant euh, dindi importance su yeneen nit boobu le daas nag bu fekkee ni moom am na kuy wax euh, foofa nag mu ngi koy wax sànq ne ni euh, non li li ko mën a reprocher mooy daal xaalis bi mu joxe comptant compté jaalewu ko ci wàllug ay banque yooyu le daas muy ak ñeneen ñi nga xam ne dañu yore wàllu ay services financiers ci biir ministère yi ils sont censés savoir que am na quelle que soit l'urgence mhm. yenn jumtuwaay yenn motuwaay yoo xam ne dañ koy jël pour ëllëg Mansour euh, mooy jaay masque urgence am na damaa soxla masque mille masque léegi léegi nii mu ñëw ma jox ko comptant compté waaye xanaa Mansour di nga ma jox facture sax ma téye facture bi pour ëllëg bu ñu ma nee yow mille francs bi nga jëndee. masque yi mais facture existe na. waaw mais avant facture sax dafay am bon de commande. bon de commande ak yooyu yëpp dañ ne léegi. comme trans comme pièces yooyu yëpp comme mbir yi dafa yàgg. parce que dafa mel ni ci rapport bi ñoom non non virement bi dong lañu ko lañu ko épinglé. waaw mais xam nga processus bi yàgg bi mu daan yàgg pour nga mën a jënd masque ci Mansour wala ci Yacine ñu ne da ngay def. Euh, publier ci benn journal ne ni euh, demande de renseignement et de prix wala nangam ak nangam yooyu yëpp yàgg ñu ne léegi nañu tënk lépp parce que urgence am na li tax ma ne tey li Birahim wax moo ci ne complicité wu yi parce que c'est le président la République moom moo ne léegi nañu def lépp dans l'urgence parce que war nañu sauver Sénégalais yi mais il n'empêche que euh, complicité bi feneen fi muy feeñe mooy ñu bañ a topp kenn alors que Cour des comptes dafa joxe ay recommandations ministre de la justice garde des sceaux ne ko diw war nga ko topp diw war nga ubbi ci moom information judiciaire mm. limal ko ay nit ñi mu war a ubbi ci ñoom information judiciaire kon euh, suñu bañee complicité boobu tour complicité bi di ñëw wala moo bi nañu fexe ba ñu leeral ko également ci wàllug yoon foofu la waaw euh, d'abord alaaji xam nga Birame dafa wax loo xamante ne nii gis nga rapport bi sous mes recommandation bu ñu njëkk def ministère de euh, des finances dane dañoo war ci boo fekkee ne dafa am situation yu mel nii xew Sénégal nañu jël jumtukaay ak matukaay yi nga xam ne moom mooy tax tey ak yëf yi nu mu taree tar tar ak nu mu bett bett nit ñi mais mu am ay règles yoo xam te ne nii war nañ ko observer par rapport ak ni ñuy jëlee xaalis bi transparence ak ni ñuy jaayee xaalis beeg ñoom seen mooy recommandation bu njëkk bi nga xam ne Cour de comptes def na ko ci rapport am loolu mooy lan loolu mooy daaj yuñ fi duut baaraamu tuuma ñëpp la ñu def teguñu ko ci yoon parce que waruñu leen woon seetaan ci jàpp nañ ne kat li situation bu exceptionnel na rek ku ci nekk profité ci pour war a mën a doxalee nam la neexee su boobaa kay kon amul problème chaque jour bu situation exceptionnelle amee kon suñu lempo bi nga xam ne maa koy fay nga di ko fay Birame di ko fay yi di ko fay ñoom mun nañ ko jël doxalee na nga xam te ni noonu la leen neexee beneen bi mu ne bokk na ci li nga xam te ni tey jii nii ñu ngi koy duut baaraamu tuuma daaj yi ku ci nekk ci ñoom nañ leen yóbbu fa mbaxane doonee benn mais Cour des comptes moom moo am prérogative pour vérifier ak saytu xaalis bi nga xam te ne nii ñu ngi koy jox euh, euh, ACP yi ñu ngi koy jox daaj yi pour bu li nga xam te ne nii moo jëm ci koppar gu ñuy yor mais dax ba xam yorin gi sell na ba xam doxalin bi sell na ak ñoom set donc loolu yëpp tey jii nii day tax alaaji lu ci bëri la Cour des comptes wax dafa nekk tey jii nii dëgg goo xam te ne nii dañ ko war a lijjanti président Macky Sall ci boppam moom warut a ànd ci ne parce que situation exceptionnelle am na ba tax nu waay neexee wala nu waay neex jëfee alalu askan wi bëri la wuñ ci lañuy ñuy leb bari na nañ koy jëlee ci nit ñi métti na de telle sorte ko kon fépp foo xam te nii ñu ko fay dugal sa waaye lool dafa war a nekk loo xam te nii lu leer la alaaji maam aca doxal ñu dem ci diwaanu bu commerçant ya fa nekk dañoo jaaxle ndax nee nañu euh, buy fa Samba boy bi ñoo yor fitalam fital fay nit ba rey fa ñaar ba léegi du benn kilifa ba ca sax maire ba kenn demul massawu leen mbaaxul seen situation kenn ku bokk ci waa marché baa ko wax mu ngi mu ngi tudd Chérif Mbaye wala Matar Diop moo wax ci wolof nañ ko déglu. lu yaay oto ay kaar yu leen war a yóbbu. trois bis joxe ne ku ne ambalo ku ne ku ci ne aussi ci ñaari dese yi. ordonnance bi aussi ña fa blessé ñëw na participer. ñu ASCODEM suñu président bi toog yëg daf koy dégg rek ñëw te xëy na xat-xat yi bëri ñu kontaan gërëm ko ci loolu. parce que loolu yëg-yëg la di ko métti lu torop nag. bi mu amee xaw na nañu jaaxal mais euh, ñun li ñu war yëpp ñu ngi koy def tey comme li ma la wax marché mbuur bi 3000 personnes fu muy xëy vraiment war na am sécurité mais boo demee trésor bi la ñu ngi koy sécurité. mais xaalis ba fay jógee suñu suñuy poos lay jógee. suñuy dërëm ñaari dërëm suñuy impôt ñu yor ay kër di fay ay taxes ay kii ñoo leen ñoom ñu ne seeni i climatiseur ut ay gardien yu doy fi xaalis bi jógee respecté wuñu ci lu ñu ñu ko def impôt patente lépp ñu ngi koy fi ñu war ak état donc war na veiller suñu sécurité ñu daal di wax ci li nga xam ni mooy euh, ay mbonaat xam nga mbonaat Yacine eh, nga xamante ni bi euh, bari na lool ci ci ci Sénégal waaye dafa am nag benn dëkk boo xam ni moom la ñu leen jagleel dëkku mbonaat nga xamante ni bii ma nga fële ci wetu noflaay ci commune bu Sangalkam nga xamante ni bii nag euh, jox nañu leen xëy na euh, benn sañ-sañ ci ñu gën a mën a euh, leen a mën a sàmm am na it nag benn boo xamante ni bii dañu ko sax nag Amadou Toumane moo leen ko moo leen ko joxoon ci atum 2012. am na itam yeneen yoo xam dañu ko jëlewaatoon faneen waaye Cheikh Ahmed Tidiane Seck doon suñu ndaw lu ñuy tewal ci boobule gox demal la defal ñu nataal ak euh, nekkinu mbonaat yi ci seen dëkkuwaay boobale bàyyeekoo Mali jàll ca France mujje ci Sénégal muy dellu si ci ñeent fukk ak juróom benn ci ay monaat yoo xamante ne seeni way jur ñu ngi jóge woon fii ci diwaanuk Afrique boobu ak léegi mu def diiru fukki at euh, Prince Albert bu Monaco dafa amoon njiitu Mali Amadou Toumani Touré dafa ko mayoon ay mbonaat yoo xam ne da ko yóbbu këram foofu ci France Euh, mu jox mu wax leen ni que seet leen ku nga xam ni mën na leen a indiwaat si seen fu ñu jóge woon. fii ñu nekk nii euh, ñu fekk fii li nga xam ni mu gën li nga xam ni loolu la ñu jële woon euh, li ñu nekk woon naa ko di ay mënaat yu ñu mën a ràññaat léegi ci siloni di espèce boo xamante ne fii ci suñu réew dañoo am protection intégrale. espèce yi ñoom Sénégal. lañ bokk mais aussi espèces yi nga xamante ni actuellement seen tolluwaay dafa nekk tamit ni barewuñu lool ci ci ci ci ci ci nature bi lu dul dans un but scientifique maanaam nga war a gëstu jox la autorisation nga jéem a capturer espèce pour def ay gëstu. gannaaw bu ñu leen dalalee fii ci village de Tortue bu Noflaye mbonaat yooyee daañu leen yóbbu ci réserve ba nekk ci Kuli Arfa nekk ci diggante Linguère ak Yang-Yang foofee ñuy mujjee ñu yaakaar ne daañu mën a sax am ak njur bu ca tukkee. Jean Tidiane mbonaati nag daa bëri façon am na ci boo xam nga cee toog sax di fóot. Mm. am na boo xam nga cee toog mu yóbbaale la tubarkalla mbonaat daa baax. <laughs> ñu wax ci grande mosquée bu nekk ci diwaanu Sédhiou la mu bëgg mooy dugal loxoom ci wàllu développement humain euh, humain ndax. Euh,